je n'en sais pas je n'en sais pas kan la Marwan ah. Marwan oui oui Marwan non non non mais bon euh, c'est de bonne guerre c'est de mm. bonne guerre euh, Jeune Afrique euh, à l'époque c'était un puissant média euh, aujourd'hui je pense depuis la disparition du vieux mm. Béchir et tout ce qui s'est passé surtout avec l'avènement de l'internet oui. euh, le digital hmm. euh, je pense que Jeune Afrique a un peu perdu de sa superbe euh, aujourd'hui euh, Marwan est libre hmm. de faire un commentaire sur oui. Sonko en tant que éditorialiste voilà patron de presse hmm. mais si su fekkee yow da nga jàpp ni Marwan eh, ci interview dafa gën a chargé Ousmane. oui c' est l' impression qu'on a suy wax ni waaw waaw ci déclaration yu mais tamit euh, je pense que effectivement effectivement ça veut dire que xam nga Ousmane Sonko pression bu muy subir hmm. euh, mën na am euh, suñu doon def examen mën naa ko tuddee indulgence du jury euh, parce que gis nga pression yi muy subir ak yi muy dund hmm. soo ko dee analyser ci politique c'est que Abdoulaye Wade a vécu en vingt six ans mm. Ousmane Sonko l'a vécu en moins de dix ans voire même huit ans en temps d'épreuve et c'est pour ça que Sonko est fort aussi quelque part ah. li Abdoulaye Wade dund vingt six ans supporte ko vingt six ans oui. Sonko moom la ko dund dans un délai très court te li mu dund moo gën a tar sax li Abdoulaye Wade dund et puis regardez à son âge il n'a même pas encore cinquante ans xam nga euh, soo contexte yooyu bu amee. Hmm. Euh, mën nga am ay rëcc rëccal c'est vrai que Ousmane Sonko dans sa communication. Oui. Euh, des fois mu def ay erreurs de communication. effectivement mais je pense que aussi bu doon man góor góorlu hmm. ñu teg ma pression bi ñu ko teg. Hmm. peut-être que daan naa gën a xaabaabal moom li muy xaabaabale c'est pas très euh, c'est pas très donc pour man. parce que la perfection n'est pas de ce monde. Euh, pour autant ñu mën a déceler des imperfections dans sa démarche dans ses propos. Mm. dans cetera euh, pour man aussi il faut jamais oublier. Mm. Euh, le contexte dans lequel il agit. Euh, suy wax ni li ko dal moo ko teg boppam. ah non non non non non non non mënuñu wax loolu. ah wax loolu moi je suis pas d'accord xam nga tey jii bu ñu ne woon. Ousmane Sonko dañu ko condamné viol. mën naa wax ni li ko dal moo ko teg parce que moo dem sàkku nit. mais dès lors parce que il faut ñu xool aussi affaire yi. Hmm. parce que dès lors que moom toppeewuñu viol nañ ko doon toppee. Hmm. ñu kii ko corruption de la jeunesse. mais kon man mii dañ ma war a jàpp corruption de la jeunesse parce que man des fois su may def samay euh, chronique. mën nga wax ni euh, jeunesse yu bëri dañ ci xaw intéressé woo et cetera. kon donc su fekkoon dafa def loo xam ni yoon da ko daan ci loolu mën naa wax ne est-ce que. bu fekkoon dafa dem sàcc ginaar. Hmm. ñu dem jàpp ko tëj ko. parce que y' a délit de vol su boobaa mën naa wax ni li ko def moo ko dal su fekkoon moom Ousmane ko comme ni ñu ko jiiñee woon. dafa mm. demoon dafa sàkku. Mm. yoon ne ne wane ay preuve mm. ne dafa sàkku ñu tëj ko mën naa ko wax. te bi mu joxee exemple ko joxe ci digganteem ak Mame Mbaye Niang. voilà non non non ci ci pàcc boobu. non non non mais mais bu de ma mbay ñaa euh, loolu c' est. le fait que mu ne yor naa. rapport bi. waaw ah. mosu ca produire rapport mosu mosu ko euh, indi. waaw waaw non non ci pàcc boobu nga xamante ne joxe na comme exemple en fait euh, le le document hein, oui. comme on a dit oui. le document existe en fait mais il n'avait pas encore qualité de rapport mm. mais le document existait parce que contrôle interne la woon et d'ailleurs Mame Mbaye Niang sax dégg ngeen ko muy wax ni euh, audit boobu amoon na existé na Amadou Ba mos ngeen dégg moo wax ko mais le sceau bi permettre le document am revêtir Euh, le. caractère de rapport le caractère de rapport. moom moo amul woon. Ah. kon donc dans le fond. ce que Ousmane Sonko dit c'est vrai. mais peut-être que dans la forme. waaw te loolu ay glissement sémantique la quoi. justement loolu moo tax moom Marwan mu jàpp ni. li ko daal yëpp moo ci dugal boppam. waaw mais dara dara joxe loolu exemple. waaw parce que xam nga lu tax ah. parce que euh, xam nga euh, dans la vie de tous les jours. pour pour man c'est la première fois. ma gis d'abord dans un procès de diffamation dans un procès de diffamation ñu ñu condamné la avec des amendes aussi lourdes mm. je pense que moom deux cent millions nañ ko euh, nañ ko amende mm. oui et ce qui pose problème derrière mmh. c'est que xoolal yow droit nu mu neexee grand droit mm. le droit hein? si bu ñu damay dégg Baye Omar di ko wax Omar Cissé Omar Touré Maimouna Touré waaw bu banc hmm. public. Hmm. damay dégg ma koy expliquer quoi pas Ousmane Cissé. waay euh, Ousmane Touré euh, droit nu mu nu mu neexee ak euh, pour ay diffamation ñu bëgg la xañ sa sa droit d'être candidat pour man hmm. affaire Mame bi ñu ñëpp xamoon nañ ni am na lu ci régime bi namoon. xam nga loolu c'est un peu Euh, doxalinu président Macky Sall en fait xam nga président Macky Sall. Hmm. suy xeex ak yow dama ko doon wax keroog du tëb rek songu la. Hmm. mais dalay lay ëffal. <laughs> da ëffal ba pare euh, pour réduire pour jéem a xool fu porté fu mu lay dóor quoi nga xam ne moom bu la dóoree benn kuréel da ngay àgg teer quoi <laughs> xam nga donc affaire mu amee ñaar stratégie globale la woon. pour ëffal koog Ousmane. pour jéem ko ñëpp xam ne nii la en toile de fond c'était Euh, pour le disqualifier. ci d'accord kon jumte la ci Marwan ci taxawaay boobu ak. Euh, bon bon bon pas jumte ah. chacun est libre de l'apprécier. Hmm. mais xam nga euh, verre bi su amee ndox ba ci digg bi. Hmm. ku nekk daa am nu nga koy xoolee bu la neexee nga ni c'est à moitié vide. am nga dëgg bu la neexee nga ni c'est à moitié pleine am nga dëgg mais man par exemple su ma ko doon analyser. damay jéem a comprendre d'abord. ah avant de juger. Marwan peut-être est directement au jugement. mais man su ma ko doon def balaa ma àgg au jugement. Hmm. j'essaie de comprendre d'abord. comprendre oui. de comprendre d'abord de contextualiser et de voir est-ce qu'il y avait d'autres de voir et de. oui ba ci rapport de force bi mu jàpp ni Ousmane Sonko da ko engagé daanaka xaru rek. moo ko indil xëy na li mu nekk di dund nii au contraire mais Ousmane Sonko s'il n'avait pas engagé le rapport de force il est mort depuis ñi président Macky Sall jaar ak fa mu jaar ak ñëpp. Hmm. ñuy jaay ni ñoom dañoo xam état et cetera di wax ay procédure code pénal da leen di tër. Euh, affaire Karim Wade. Hmm. ils ont joué le jeu de la procédure gis nga fa mu mujjee affaire xalifa Sall ils ont hmm. joué le jeu de la procédure en sortant les théories de la caisse d'avance. Macky da leen a tër dem ak yooyu Ousmane Sonko rek moo ko kii te li ko ko may. Euh, dès le début. Euh, te procès bi fi mu mujjee dafa koy wan parce que ñi ko doon toppee viol mu jigéen corruption de la jeunesse. kon donc ça veut dire que dès le début Ousmane Sonko avait raison sur nous. Hmm. en disant que ça c'est un procès politique mais c'est pas un procès juridique dès lors que c'est un procès politique il va apporter une réponse politique il va aller même plus loin en disant que président Macky Sall déggul jàtt. Ah. il ne connaît le rapport de force et c'est le rapport de force et c'est hmm. nga la violence en soi. n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Parce qu'il y a dans la politique une dimension qu'on appelle la violence. Elle peut être de trois sortes. Mm. Elle peut être une violence verbale, une violence symbolique et une violence physique. Ce qui est important dans mm. le hmm. cadre de la violence, c'est de ne jamais se tromper sur le temps de la violence et sur le lieu de la violence, et voire même sur les modalités de la violence. Et mmh. à mon avis, mm. dans le conflit qui a opposé Sonko à, au président Macky Sall, mmh. Ousmane Sonko ne s'est jamais trompé, aussi bien sur le temps de la violence, sur le lieu de la violence, et voire même sur les armes de la violence. S'il n'était pas violent, mm. il serait déjà mort politiquement. Parce que la capacité d'Ousmane, c'est d'être euh, en fait le, le, euh, le fort d'Ousmane, c'est d'opposer au président Macky Sall une violence plus violente que la violence que Macky Sall lui a opposée. parce que parce que un peu. non non parce que ah. les Anglais disent. Oui. violence brings about violence. Ah. la violence appelle de la violence et Ousmane a subi de la violence il a répondu à une violence beaucoup plus forte que la violence bi ñu ko jox loolu moo tax mu génn ci. s'il ah. était faible il serait déjà mort parce que Karim Wade a faible. Hmm. il a été mort. Euh, Khalifa a été faible yaa ma euh, maintenant euh, li sauvé Ousmane Sonko. Hmm. c'est il a il à la violence bi mu jël ci camp bi. Hmm. une violence plus supérieure violence bi mu jot loolu moo tax mu génn ci quoi. noo koy traduire boobu violence. non non à la fois symbolique. à ah. la fois physique à la fois verbal euh, Ousmane euh, euh, des fois il est très violent dans le verbe hein. ah. il est extrêmement violent dans le verbe euh, il est très violent dans les symboliques. Mm. etc mais le régime en place a été hyper violent contre Ousmane Sonko hein, sur tous les plans hein. du point de vue physique gis nga dégradation yi ñu ko def. Hmm. atteinte à ses libertés et cetera et cetera et cetera. Mm. mais bon ça je pense que c'est un peu. Hmm. Euh, mi ngi sunu ginnaaw. Euh, dañu ko waroon a dund dund nañ ko mais le fait que euh, Mamba euh, euh, Madiambal Diagne di ko génne ci ab téere tombé ak Marwan également accordé interview mais ñoom ñaar ci bisu tey bi du dar du am benn impact bu muy def te fi ci toll nii que ce soit sorti Marwan que ce soit livre bi mu génne et ci tollu le livre de Marwan le livre de Madiambal Diagne tout comme euh, les les déclarations de Marwan mm. sont un peu en décalage avec la réalité du, du moment. Ah. Euh, parce que la réalité du moment, si je puis vous faire cette confidence, mm. euh, n'est pas... Euh, dans le sens de la confrontation. Ah oui. mais il est dans le sens du dégel. du euh, dégel voilà ndax daf ñu may ñu dugg ci poñ boobu noonu. mooy euh, barricade yu ñu gis ni xaw nañ ko oyofa ci cité Kër Góor gi. waaw dafay duggaal ci dégel. voilà très bien parce que fi mu toll nii. Euh, su fekkee ñee ni ñu waxee c'est tendance su xam.